encore une fois, je n'ai pas parlé de liberté. Je suis pour la liberté, mais je ne suis pas pour le libertinage. Ça fait. Si tu me comprends. Digène. Mais a libertinage. Euh, c'est-à-dire à un certain moment pour nous, nous avons exagérer des fois y a des gens qui ils te disent non parce que pour nous, caaxaan la yenn waaw parce que oh, xam nga yenn saa yi nga dama bëgg a dem seet sama copine dama bëgg a dem seet sama xarit ñu ne la déedéet wax sànq dama la wax sànq sama sama jàlbeen wax na la dama la wax sànq sama liggéey wax na leen euh, droit yi ñuy réclamer yëpp dafay am moment boo xam ne ne dañuy daal dañ toog na xool lii fu ñu jëmee parce que actuellement non femme là mm-hmm. bari nañu ciy sëy ñoo xam ne exactement comme ni ko tubaab bi defee lañ koy sëyee d'ailleurs léegi léegi sa laa gis sax terme bu bees woo sa jëkkër mu toog rek nga ne ko non dama bëgg nga may ma baat parce que sentiratuma la. comme ça sentiratuma la comme ça. comme ça gis naa ko. lu xew gis naa plusieurs fois. non wallahi azim. lu xew gàddu sentiratuma la. te góor na fa fa sikk yam. dox waaye du woo. dox rek kiko yalla bolel ak sen njaboot woo ko ne ko sentiratuma la sentiratuma la ni mu nekkee ci catu la ba xalé xale yu jigéen parce que effectivement c'est par rapport à à à à comment dire ni koy woyé à l'importation d'une culture occidentale ah mais proche nag incompatibilité d'humeur dafa moi moi je préfère ne la sentiratuma la que genn di xol kenen kou may sentir voilà léegi nag moom laay waxee nag c' à dire man je préfère incompatible d'humeur bobu incompatible d'humeur bobu non exemple la joxe exemple la joxe mais ngay déglu ma wax. ak moom eh, waaw ba pare bu la sa liggéey. waaw la question moo tax. ah non non mais mais bu ne bu ne ma loolu la préféré nit li ma préféré kay maa ngi moom nag wax dëgg yàlla c'est-à-dire nit ku nekk am na la yàlla mooñaale pour ngay surmonter ay situation te loolu mooy valeur nit. d'accord d'accord encore une fois

continuer nga ñàkk koo neex muy dem di wuti ku mu neexool feneen maanaam di njaaloo. di xool leneen. man je pense la. nga ñaan baat nga dem. waaw loolu nga ñaan baat la nga dem. waaw maintenant kooku bu ñaanee baat dem yow nee nga doo ko may sa doom ba tey. père du may doomam ku sëy ba tax li ma xee daale du ma ne ko may sama waxambaane nee na loo am naa ci moom droit président dafa ma ngay ree rek moom dafa ne moom sax day toog bëgg seetaan gis-gis moom bëggu ci participer mais xanaa dina ci xaw a am xalaat par rapport ak li ñuy ñoom xam nga xam nga seetaan dama ne dama ko ko ndax kii xam na dara te kii xamul dara su fekkente ne may naa ko ki kii ñëw këfu kële daal di ci këfu kii kii mën na ko fa ne ñu ko dem di wuti keneen comme li nga wax. d' accord eh, du ma ko def gis naa ko mu ngi nii rek parce que père mu ngi nii rek nañ la kàddu gi léegi. bu nekk ak banu ko natt ba mu yem ca. jigéen en fait man je parle pour jigéen yi nga xamante ni ñoom laa gis tey ah prospère. parce que ci télévision la ñu nekk. et il faut noter que ne àdduna lépp yar la. te day feeñ ci plateau bi ah nga nekk nga nekk xale koo mënti doon le comportement que tu as envers les autres day wane yarin bin la je suis chez moi je suis maître de moi-même je suis chez moi je te l'accorde faire, mais tu vas me laisser terminer je te l'accorde Fall gisoo moo tax nga tiim ñu di wax ñu bàyyi la nii moo tax ñu bàyyi la nii yaay suñu kilifa yaay suñu papa donc je disais que éducation dafay feeñ ci lépp ci doomu aadama mais on parle d'actualité Sophie Sank je ne disais pas que da nga wax lu grave xam nga fan laa doon attirer sa attention uh-huh. on est sur les réseaux sociaux vous voyez ce que les femmes subissent par jour ba tey ñu leen di toogloo ci néegu sëy xam nga fan lay mujj oustaz kii rey na jëkkëram kii soodo na voilà on ne voit jamais un groupe d'hommes ils vont pas eh, tey tey non non attends ah, d'accord groupe góor gisagoo ko fi ñu ne dañuy toog ku nekk di wax li may dund ak sama jigéen mais ni ñi ñu ngi toog ku nek ni wax li ngay dund si sa sëy. billahi ku nek ngi wax li ngay dugg si sa sëy. billahi et des fois tu racontes une histoire à l'anonymat say mbokk wala say xarit dañuy xam ne yow la de dañ lay ba biir mais dañuy xam ne yow la. li ma am habitude di wax mooy kuy dem bay weer sa bopp. mooy mooy mooy sonn nga. c'est-à-dire côté boobu duma si débat torop parce que di nga gis nit ku la ñaan ba ci ndimbal sax ñëw ne la musuma ñaan sama aduna. en fait je me place je me mets à la peau de l'autre ci biir man non lay dundee sama aduna ki nga xamne ne dem na ba tok ci réseaux sociaux di dem ci anno di wax ni mi dundé mo né koku yuuxu na sonn na ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais avec So mo né amna jigen yo xamanteni xamante du sa comportement jikko euh, jikko jëkkër mo lay tasloo du prospère ay incompatibilité d'humeur ni dara da fay fekk na da ngay dund sa négu sey lo xamanteni ni bu la fa nday wala bay fekkoon te yobale la dagan dalay yobale ndax choono bi nga xamne yang ko fay dund te do ci am ngeureumal yalla xam ngeen ci dara ay borom xam xam ngeen am yo que ding ne ko subir sa néegu sey do ci jur do ci am ngeureumal yalla parce que kiñ lay bëgg jurlo koku sax ak rancœur parce que dafa mag gis yaayam di dund bu ne parce que gis na yaayam ci donc dama bëggoon accentuer divorce rek dañuy généraliser et généraliser dafa grave ci genre situation bi dina am kuy sétane émission am nga dañ may mais divorce la divorce suma ma ci aduna moy takaliko mhm. mais des personnes ont divorcé fek na yow ku gor ki yaa ko may batam mu dem mhm. kooku day tok fi mu tok ñuy tok ci télé bi ngay def ay jugement de valeur te bu doon sago mu tok ci sëyam mais jëkkëram moko ko ndax lan peut-être dafa doyal ci mom ndax lan peut-être parce que nangam tout à l'heure Prosper tu m'as donné ben exemple bu am solo mhm. par rapport euh, à ni ñuy waxee doyal ci yow mais doyal na ci yow mo tane sax li gis tay wallahi oustaz gor dina la xemmem tak la am ak yow weer ñaari weer bu du bëgg lu dul nga génn këram mhm. moom it muy takk di teg kon ngeen baal ma ni cagaju jigéen ji amee noonu la cagaju góor ji amee bu dee dañ koy jël rek teg ko ci li nga xamante ni euh, moo mooy yoon donc li ñu war a xool mooy lan mooy cause du divorce yooyu des fois nga gis jigéen gu génn ci sëyam te dara taxul mhm. et je répète encore éducation mooy lépp xam nga lu tax ma ne éducation mooy lépp oustaz man sama kër sama famille je n'ai jamais vu jigéen bu tas jël appartement. Mm-hmm. te boo ko tu es accessible. Mm-hmm. parce que y'a jël sa appartement di woote ñu ñëw. attention am na beneen jigéen bu jël appartement ndax mënatul dellu kër ndeyam ak baayam uuf ay doomam di liggéey di ñëw yor njabootam. kon nak lépp dañ ko war a xool ko catégoriser te jéem a génn ci ay jugement de valeur jigéen tas na nekk jigéen bu baax. jigéen mi ngi ci sëy nekk ku bon koo xamante wax dëgg fa yàlla euh, euh, euh, boo ko gisee doo ko mën a naw donc sa situation matrimoniale.

bu fekkee da nga nekk nit ki j'aimerais aussi ñu dellu en arrière bu fekkee da nga nekk nit koo xam ne parce que Sénégal euh, ni ñuy sëyee d'habitude c'est loo dund ak sa borom kër lu metti nga génn wax ko boo divorcé nga génn wax ko hmm. bu divorce bi amee les gens ah dafa tas parce que hmm. lii ak lii ak lii moo tax hmm. léegi keneen bu la bëggee takk Sénégal xam nañu Prospère tey bu bëggee takk Sophie dina ñëw ci Safia ne ko ah sa xarit bi dama koo bëgg yan jikko nga xam ci moom mu ne ah dafa tas de parce que dafa bëri woon histoire dafa tas de parce que lii parce que là donc c'est des trucs yoo xam ne il au fait pas le fait de juger la personne comme ça on va pas être là juger qui que ce soit mais femmes divorcées nous ñu compte que mhm. elles ont du mal à amaat un foyer parce que en général les femmes divorcées ils montent débat Sophie le débat bi mhm. euh, Sophie bu ndaw macha le li mu mhm. euh, ci euh, rafet xam nga gis nga Sophie li ci wax Mhm. tey doomu aadama sëy bi nga koy def jaamu yàlla tax mhm. jaamu yàlla nag bu fekkee ne xeexa a xuloo moo ko moo moo ko moo moo moo ko fondé war ngaa pause xool segam euh, sang bi mu ngi koy wax sànq yàlla dafa ni li ma sàkk yëpp li ma bind yëpp sëy kase laa ci gis ni euh, divorce mënu see ñàkk waaye man yàlla divorce laa ci gën a sib mhm. ndax lu tax parce que dafa am conséquence yu ci nekk comme li ma la wax sànq dafa am ku ma a ñëw sama kër Euh, di ma ni dama bëgg a man ko lan moo tax mu ni ma sama borom kër nangam nangam nangam mhm. ko du jamonoy seddaay la nekk ma ne ko waaw mu ne ko léegi boo ñibbee bàyyi say doom seen kër papa xale yi war a xëy jàngi temps seddaay boobu noonu kan mooy am jotu ak cofeelu tàngalal leen ndox ñu sangu mhm. mën nañ faa bàyyi jigéen boo xam ne ndox mu seddala leen ñu sange mhm. mënuñoo yuuxu parce que gisatuñ seen yaay ma ne ko benn dañuy jàngi bu wacce 5 h 6 6h ñëw ci kër gi xale yi seen yaay nek ci kër gi yëpp dañu nek seen ay nek yaay di sétan télé mais yow say doom dañu tum ranké parce que seen yaay newul ci kër gi xoolal dafa joy dama waat jëkkër ji ci saasi mané ko bul xol li nga bëgg yeen say del xol lék lék li dimbali xale yi mais dafa am sëy bo xamné pour mu dem dafa metti mooy sëyu góor bu dof ak jigen ju ba do la ñaar ñooñu seen ànd du mëna nek parce que ku góor ki bu dofé xamul teraanga gis nga dafa am luy dundal yaram am luy dundal xol yaram lek ak nan mo koy dundal mais xol wax bu neex mo koy dundal bari na jigen buy souffrir jeex ta dara manki wul ci keur gi fek mu ngi jeex tak fek li ñu li ci xol bi amna ben théâtre duma ko tuddu bu don daw fi ci réew mi nga xol ni ndaw si mu ngi yor auto bu rouge pour ma tuddu ci kenn rek Thierno Diallo pour ma bañ tuddu film bi mais da nga gis ni soxna manki wul dara ci bir keur gi mais tay soxna si tay bu jeukeram yexse du stable pourtant day rombu jigen yor auto mu génn taxaw ci feu jigéen buy dox ni akamaa ñee kii bu ma sañoon waa ji moo may takk fekk ndaw si ñàkk am fu mu jëm moo ko jaaxalaay bu ko amoon daw génn kër gi nga sofi sëy nekkul benn euh, mode boo xamante ne pour Facebook la wala nduroo la yére déedéet dafa am ñaar ñoo xam ne dafa am lu leen boole alxuraan a ko wax wa jaala man maay def man yàlla baynakum ñaar ñi séq sëy mawadda cofeel wa raxma ak yërmande ñu ni yàlla mawadda bi kan moo ko yor muy cofeel bi mu ni cofeel bi ku jigéen ki moo ko yor jigéen day bëgg borom këram ba am sago ñun yàlla raxma bi yërmande bi mu ni nag ku góor ki doo koy indi parce que góor ba amee yërmande rek loxoom dootul jóg mhm. jëm ci soxnaam bu génnee ci biti bu yoroon 1000 francs bu gisoon dàll bu rafet ci benn arrêt daf koy jënd indi ko soxnaam surprise yooyu mooy dundal xolam xolam commencé di naat waaye dafa am melokaan yoo xamante ni góor bu dof bu ko yoree rek pour mu yor jigéen day jafe am na jigéen ñoo xam ne ni ko su fi waxee sànq avant avant sëy dañoo am Eh, bi ñu duggee ci biir sëy dañu am personnalité sang bi moo ko xam bi ñu génnee ci sëy la ñu ëpp personnalité pourtant dañuy dem ci appartement beeru xam nga lu tax mënatuñoo dellu seen kër ak seen njaboot parce que lu tax mm, mënuñu fee dellu ñu ngi fa ay wuj peetar gu ñu xaw ma ñu ngi ci biir kër gi waaw xajatu fa bu ñu dóoree doomam mu wax dañ naan ko da ngaa tës sa sëy ñëw mhm. ay doomam du ñu stable benn faw mu dem wuti appartement li ñu wax takk sërëm dem daan doolem parce que jëkkëram ñàkk na jom bàyyi na ko xale yi mu ngi ñaq di fayal ay doomam ngir ñu jàng am na jigéen yu mel noonu mais am na jigéen ñoo xam ne mosu ñoo jaar ci borom kër mais ñu ngi fii ci biir Dakar am ay euh, nu tudd ay appartement chaque jour ñu ngi tëdd ak ay góor ñu ngi leen di may xaalis ñu ngi leen di jox ay téléphone yooyu yëpp léegi gis nga mooy boobu ngay mooy dafay neex ci jamono ji nga koy de fekk yàlla nee na da koy seetaan ci film indo bande bi première fois day neex mais buy dee xoolal cinquième étage lay jóge ni mbàpp ci suuf film yooyu noonu la noonu la noonu lay mel buy neex day neex da nga jéem saag rek mu daal di dagg mais ah. eh, daal ñu toll mooy sëy divorce yi na li tax mu bari na wax naa ko bu yàggul grand plateau faw ñuy xool góor ñi ñoo amul maîtrise u téye jigéen parce que doxaan dafa neex ngeen baal ma ci kàddu bi parce que lu tax sandwich kese ngay jënd <laughs> ak sawarma jaar fa jox ko ndaw si jël 1000 francs jox ko du mat 2500 voilà bokkul nag mbokkum chaque jour ndekki añi reer ndekki añi reer doom juddu nga bëgg a jënd ay couches ah sa bopp bi day commencé métti ndax yow mën a laaj léegi li ngay def mooy parce que bi nga koy fekk nga ko mu nekk disquette fekk nga ko formam rafet commencé na benn ma ngay jafte beneen bi topp formam mu ngi commencé di soppeeku parce que mu ngi commencé di nàmpal jiin yum daan sol mënatu ko sol parce que body yum daan sol mënatu ko sol après yaa ngi benn xale bu jigéen ci bët mooy xemmem bët mooy dooyulu am na ñoo xam ne seen benn soxna ci la ñu sëgg ba màgget si giwuñu am ñoo xamante ne am nañu ñeent jóge fa takkaat takkaat kenn ku nekk ak sa vision àdduna rek noonu la nit wala ñu bàyyi ñu bàyyi ñu bàyyi sa sa sa invité bi dafa mel ni moom bëgg naa cee participer. waaw dugal. dugal yaakaar dugal bu baax. dugal moom moom moom mu ngi xaar ci nabi après faaw ma ñëw. ah ci nabi ngay xaar. waaw Aïcha waaw. lu wér. loo xam ne l'islam mënu koo toxal amul ku ko mën a toxal démb mënu koo toxal kenn mënu koo toxal samay wax damay argumenté damay duut baaraam ñetti téeméeri teen yu bokk tub dëkk jukki naa ci naan damaa wër. te nee noon xam-xam bi gën a wér ci xam-xam yi moy wër nee noon moom la lislaam nangu moom la tribunal nangu mhm. moom la ñëpp nangu dama wër damaa dox nit dina jur ab noonam jur muy sab noonu mhm. nit dina mbokkoo ab noonam sa mbokk muy deret muy soow waaye muy sab noonu nit it dina denc ab noonam muy jàll ci ginnaawam doon soxnaam muy jàll ci ginnaawam ba dem ci comme ni waxee ci jigéen wax na dëgg góor ñu wayadi yu yembadi yu doy waar waaye wooy jigéen liggéeyub jigéen ak lu jigéen def ak pexey jigéen ku mag ci islaam ku mag ci nitu yàlla dem na ba soxnaam teg na ko ab natt boo xam ne moo tax nu sa am na góor ñoo xam ne faaw di ngeen muñ allah kulli aali ndax sunu borom moo leen di nattoo jigéen ju bon ndax jigéen ju bon moo leen di yéege seen màqama moo leen di jàllale xool ko ci Abdou Khadir ni ak soxnaam mhm. jàpp ay téere mbaxal mu am gan ñëw añ jot mu ne ko indi ñam wi mu ñëw jël bool bi daal di teg indi mu ubbi ndekete téere yanu yendoo xam nga di ko toog ba waxtu añ jot mu yekk ko mom mo nek ci bir bol ba abdou xaadir jëlaani keroog dafa genn sol aw dalam dem ñu ne ko na tay ndax soxna su ban moy tax nga xam sa maqama yow fi nga toll uh-huh. so fi bamu genné ba dem ba dem uh-huh. dem na ba yem ci ngër mo xamné ne ban ko ne kay agn ñëw na agsi na na ba reer jotee reer na def ko uh-huh. ñaari fan ñetti fan ñenti fan yoo xam ne gisul kuy togg ak gisul cin lu tàkk mm-hmm. ah ñu toog nag ba si yàgg daa koy na yow na nga togg na nga joxe na nu dunde ndekete ñooña daan togg mm-hmm. nga xam ne daa wunu togg doon daal jël ñam wi ba mu leen laajee ne leen nan ngeen di def bay indi aw ñam te du ngeen togg mm-hmm. nan ngeen di def bay joxe ñuy dund te du ngeen togg ñu ne ko am na koog day ci barkeem rek nan daan taasu ne ko kan mu ne ku ñuy wax Abdou Khadir Jeylaani mu nekk ci barkeem rek nan daan taasu lépp lu nu bëgg sunu borom indil nu ko xoolal te moom xamul boppam tey gis nga jigéen yokk na maqaamam ba mu toll foo xam ne ñooñu ñu ngi dund ci barke Cheikh Abdou Khadir Jeylaani di sonal bu ko soxnaam di sonal. ak muñ ko ak mu ko. da ngay bari ndax su ko soxnaam loon mu ëlbatiku dóor wala mu toroxal wala mu génne kon du egg foofu. dëgg waaye da ko sonal mu encaissé am na ay nit ñoo xam ne loo gën a encaissé maanaam ay góor yàlla yoo xam ne sunu borom mi ngi leen di doxale ci soxna su bon. fa la leen di yëkkatee. donc fase du moom mooy du moom mooy. non non non non yàlla nee na nee na benn bàkkaar amu ci nee na dagan na araamut waaye gërëmuma ko. Mm-hmm. ndax la muy yàq day bari ca gune ya la muy màbb. am na ñoo xam ne sunu tàggoo dootuñu nuyoo. Mhm. ndax ku nekk day xalaat la lala sa morom def ci këru àdduna. soo ko ko rek te ko saa yoo ko mu bees. Mhm. soo ko rek mu yees. Mhm. moo tax waykat ba way ko ne nit ki nit ki nit ki warul warul ko ndax soo fàttalikoo rek day beesaat. papa ñaar ñii laa lay laaj ndax di leen may sa euh, sa doom bu góor wala. du ma la may waxambaane wu ñaar fukki ka d'accord dama lay laaj. waaw dama ne la kii. da doon ma. waaw ginnaaw sa xol mi ngi dagg kii musul xam dara waaw dama lay laaj. waaw ah, baax na papa la benn affaire. <laughs> kii da doon kii musul xam góor. mu dugg ci sëy borom këram di ko bundu xatal di ko def lu nekk ci àdduna. ba xëy wàcc ko. mu toog musul xam góor borom këram rek la mës a xam ko. Mm-hmm. waaw mm-hmm. mu mu wàcc ko mu toog mu gisante gisanteeg sa doom bu góor ñoom ñaan ñu bëggante sa doom bu góor indil la ko ne la papa kii de dafa tàggalikoog borom këram expliquer la la ca nekk yëpp que le tàggalikoog borom këram parce que peut-être dafa nekkoon ci lu ko neex ñaar ñii taxaw ñaan ñëpp ngay dàq wala di nga am un peu de di nga am compassion ci ki nga xamante ni woon na boppam ba sëy sëyam tas waa xam nga Sophie foofa dagatul xam ndax kii maanaam am na ku ca jaar voilà dëgg rek dëgg xam naa ma ne man dama dul xam ndax kii jaar na fële kii jaar na fële man li may xam rek mooy alxeyri jib na d'accord alxëyri jub na feneen rek yow sama boo xambaane du ma la ko may. d'accord naa léegi réponse bi ma bëggoon am naa ko papa. man loolu sañ naa ko. papa je suis d'accord dama bëgg a avancer waaw mais dama bëgg a avancer. may ah, ma ma avancer donc papa papa léegi ci gàttal comme sëyoon na doo ko maye. léegi xalaatoo ne am na injustice totale boo xam ne dund nga ko sa diggante xale bu jigéen bi nga xam ne doomu jàmbur la te deful li tax bàyyiwoo ko mu sëy ak sa doom xalaatoo ne injustice am na fa. man dey damay nag rek lii may def yaakaar naa ne defar bu wér la kii nga xam ne xamut dara dara dara dara ah, dara lu muy saf d'accord Si suis d'accord. tu sais pourquoi la question. ce n'est même pas. c'est-à-dire que... effectivement. di nga ne ah ki ham na etc. kii xam na jigéen et cetera sëy ñaari nit la tay yaa ngi ñàkk sa dom bi nga xamanteni xamul jigen wante ndem waaw xol nga ndax jikko mi rafet na ba mom mu meuna yor jigen ah, yow bu fekke sa dom bu gor dang ko ñak rek ci walu ñak xam jigen est-ce que mom war na yor jabar xam nga pourquoi ma def fofu point d'interrogation bi moy ne bari na ci doomu tay. yo xamanteni tay source de divorce yi ngay deg yep yaakar ne ci jigen ni la ci ñom la. parce que su fi amuñu woon éducation bi war pour ñu xam ni kii sama jabar la dama ko war a respecté kii sama jabar la dama ko war a yërëm yërëm xam nga fi may rejoindre mooy ne li yàlla daganal ko ba pare dàq ko boo xoolee divorce day am oustaz ba baar saw di ñëw mooy day yàlla sax am na limite Sophie mhm. mooy ne moom day am fu mu toll ne ñaar ñi mënatuñu ànd il faut keneen takkaat keneen pour mu ñëw foofu buñ fa duggee justice day ñëw mhm. kon danga nga war a xam ne Dieu à été juste ak ñëpp pourquoi yow doomu adama simple nga wara meuna ñew taxaw nga ne man duma def lii du may li duma may nit chance parce que bari na des femmes qui sont brisées parce que lan sa goro mo nangul nga sey ak sa doom moy position bi père taxaw te pourtant c'est des ay jigen yu bax lañu man pour man dañu wara a wat ci diine papa li ngay wax deug la amna demb démb de mais lu bari demb diine dak nako te diine moy deug xam nga fan lay waxe ak yow jamono da nga daan tan jabar ci jikko bu rafet ñu ñëw taxaw ni la ndax amna na diine am na jullit mu sëy mu tas u pas pour man li nga waroon wax sa doom bu góor mooy xale bi est-ce am na diine en tas na est-ce que jikko yu rafet ya ca moom mi ngi ci moom ba tey mu ne la waa nga ne ko fobal sa soxna nga dem. ni ni mag yu baax yi waaw daa moom su la bëggee. waaw du mën a xam ndax yow baax nga wala baaxul li mu gis rek moom lay dëgg sa xalaat la. man maa wóorul man maa fi ma doon ñëw Sophie fi ma doon ñëw Sophie c'était pour dire.

sama doom bu góor indi ko ci këram ma ni la baaxul yàlla xamoon na ne jamono dina ñëw damay xool euh, euh, euh, ku mu neex mhm. comme neexuma rek du ku baax kon yàlla tranché ne bu yàgg mhm. ci bi muy wax ne